xam li dox ci réew mi ci réew mi gis nga nit boo joxewul dépense ah, dara xamoo li la war di di dag dag ko sak billahi papa waaw taw nañ ba dee billahi di ko fooge di ko sa fasa lu nañu dugg waaye yàlla moom amin yàlla mi am te am te mën yàlla ko fa yàlla génne Oke, jërëjëf jërëjëf ok jërëjëf waay toppatoo mag ñi li ñu metti woon yëpp mu faj ko ci daraja amiin jëf mbokki internet yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñu ñuy teewlu ci seen bii di Nar Actu yi dal leen ak jàmm donte nag mag ñi ak ndaw ñi ku nekk mi ngi ñaanal ki nga xam ne rek mu di président Ousmane Sonko yàlla dal di koy génnee foofule ba tax na nag mag ñooñi la moom dañoo nekk rek fa nga xam ne moo di ci seen bërëbu liggéeyukaay daal di yëkkati ay kàddu di xamle ne nag jamono ji képp rek ka nga xam ne ni dara war na la moom réew mi daal dinay metti lool ci yow nga wax ko rek ak nga ñàkk ko wax nag ñoo ci yam ba tax na ñoom ñu ne nag képp ki nga xam ne nag yaa ngi ci réew mi yor ab carte d'identité te joxoo ko nag ki nga xam rek moo di président Ousmane Sonko yow moomi la sab carte d'identité nag yàq nga ko ba tax na nag jamono ji nag li ñu nemm ko nak moy mag ñi nak dal di nañuy ànd ak ki nga xamne modi euh, president Ousmane Sonko te bu ñëk nak ñi nga xamne ñoo daan yëkëti ay kaddu di wax buñ mosaan di wax rek dañu naan ñi nga xamne nak dañu dañoo ak Ousmane Sonko ay ndaw lañu te ndaw yoy le amuñu carte d'identité te jamono ji nak na ne mag ñi di dinañuy fës ci mbirum Ousmane Sonko bu euh, baax baax mom Ousmane Sonko jamono ji nak te daal di téye réew mi poñe ko lool ndax nag gis nañ ne mag ñeek ndaw ñi ñëpp nag jamono ji nag dañu ko jox bopp bu baax a baax moom président Ousmane Sonko mile donte nag bu njëkk dañu daan waxoon naan na ñi nga xam ne dañoo ànd ak président Ousmane Sonko ñu si bëree bëri nag ay ndaw lañ te ndaw ñoo le amuñu carte d'identité mais jamono ji nag mag ñi moom daal di nañuy fës. ci mbir mu ni mel bu baax a baax teg ci nag di ñaanal ki nga xam ne nag moo di président Ousmane Sonko fépp rek fa nga xam ne nekk na fa yàlla daal di ko fay defal la jàmm ñaan yooyu la nag mag ñi moom ñu ngi koy ñaan bu baax a baax ndax ah, gis nañ ne rek réew mi jamono ji nag dal dinay métti bu baax a baax ci ñi nga xam ne nag ay way góorgóorlu la ñu fii ci réew mi képp ki nga xam ne rek dara war na la moom réew mi daal di nay métti ci yow bu baax a baax ba tax na nag yaakaar daal di judduwaat jëm ci ki nga xam ne nag moo di président Ousmane sunko yàlla dal di koy defal jàmm nag indiwaat ko ba nga xam ne dina mën a yor réew mi rek ba daal di jaarale lépp ci yoon mag ñooñu le nag ñoo daal di. yëkkati kàddu yu ni mel foofu la nga xam ne rek fa la ñuy daanee doole dal di wax na nag mi moom métti na lool.